fépp yàlla bu la yàlla yërëm baat boobu la njëkk a wax dafa njëkk a wax ne kenn képp ku génnee ngànnaay ci suñ biir te dara xewut jàmm rek am nga cib rek boo génnee jaasi wala paaka mu ne yàlla na bu la yàlla yërëm mu dellu waxaat beneen xadis ne ku génnee ngànnaay ci suñ biir te fekk jàmm rek a xew dara xewut mu ne fa laysa minna bokkatoo ci ñun jullit ñi pourtant hadis yi yëpp nit ñaa ngi koy romb man xaraja minna silaahan fa laysa minna mu ne ku génnee ngànnaay ci suñ biir pour tiital nit ñi xam nga am nañu koy def tëb tëb rek génnee pistolet eh, pour nit nit ñi tiit yonent bi ne ku ko def rek bokkatoo ci ñun mais ñun dañ jàngul li yonent bi wax wala buñ ko jàngee jëfewuñ ko suñ ko jëfewoon yii di am du am am na ngànnaay bu gën a bon bi ñu bi yonent bi wax mooy ngànnaayu làmmiñ génnee sa làmmiñ teg ko ci doru deru gor yi lu leen neex nga saaga foog ne nag am nga ndam te yaa ngi rey sa bopp te yëgoo ko kon yal nañu yàlla dolli sutura ci réew mi yal na lépp déroulé ci jàmm yal na lépp déroulé ci jàmm bakkan yi joto daanu sax ëpp na waaye yal na fi yem ah ña ca demit yàlla rek moo xam seeni mbir waaye comme ay jullit lañ sañ lañ leen a ñaanal yàlla yal na leen yàlla yërëm te jéggal leen ña ca dul jullit bu dee am na ca suñu yoon newul ci ñoom moomuñu safara moomuñu àjjana yàlla xam la yee ca ñoom yàlla na ko def ca ñoom